allahu tax mboolem fu jaamu yàlla nekk am jot am jàmm am wér nga daw ñëw fekkee si ko ndax tiyaaba ji ci nekk kenn xamul nu mu toll kon ñu ngi jul ngi nuyu mboolem mbokk julli yi fi teew fa tabaarakallaahu di jël suñu nuyoo di ko teg ci boroom dëkk muy sëriñ Maguette Diop waaye itam di ko teg ci imam ratib muy sëriñ Adama Guèye ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom la yàlla boole gox bi mu mel ni fa tabaarakallaahu toll nañ foo xamante ne ni euh, jumaa mu ngi bëgg a jot jumaa nag farata la ci faratay lislaam ponk la ci ponk lislaam képp koo xamante ne yàlla may na la sens nga am jot mën a dem juma yonent bi nee na nga dem juma waaye képp koo xamante ne yàlla may na la sens nga am jot demuloo juma ñetti àjjuma bu la rëccee soo moytuwul daañu effacé sa tur ci ñi nga xamante ne ñooñu dëggu ñi loolu yal nañ ci yàlla musal su ko defee kon xam ñu xam ne jumaa mbir la moo xamante ne mbir bu ama am solo la ci gox bu nekk waaye léegi toll nañ ci jamono boo xamante ne ni jumaa buñ ko ubbee daanaka mook jàkka ñoo yem te jumaa warta yem ak jàkka ndax jàkka jaamukaayu yàlla la waaye jumaa moo ëpp doole jàkka lu ko waral mooy semaine bu nekk jullit yi war nañu mën a daje dënkante ci ñoom euh, mbaax ak ragal yàlla war la war nañu mën a daje jàngal seen bopp wal asri inna al insaana la fi xusrin ndax saar woowu dañu ne su fekkonte ne jullit yi xam nañ ko doy na leen sëkk walis alquran waaw jot na semaine bu nekk julli di dajee waxtaan ci seen biir loo xam ne dana defar seen diine dana defar seen jikko dana defar seen pas-pas loolu mooy importance su kon euh, bokkul ak jàkka loolu moo tax yonent bi wormaal ko lool yàlla fonk ko lool ba wàcceel ko aw saar muy suuratul jumaati suuratul jumaati téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent boo koy waññi dinga dem ci saar boo xam ne suuratul jumaati la muy saar bu yéeme bo xamanteni yalla waxna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moy kan waxna ko itam njabotam ñoy ñan ba pare door ñu indil juma ci bir sar bi lolu motax muni u'titu jawami'al kalimi wa nusirtu bir-ra'b bir-ra'b yalla joxna ma manam wax ju gatt te ëmb lu bari waaw ah, yàlla jox na ma wax ju gàtt te ëmb lu bare ñu ne loolu mooy lan ñu ne wax mën naa bari te la muy teg du am njëriñ waaye wax mën naa gàtt lool te am njëriñ moo tax yàlla waxal Seydina Muhammad ne ko waxal sama jaami ne leen buñ yaakaar ne jaamu giñ may jaamu am na lu may yokkal damay xool ndax gore nañu walla damay xool ndax xam nañu li ma leen defal ñooy ñan waaye du caaga ne buñ ma jaamul man aw ma ñu ma jaam yàlla na am ko jaam bam doy waaw ah, bu dul doomu aadama kon moo tax mu ne ko wax leen ne leen sabaxa lillahi ma fi samawaati wa ma fi ardi ne ne sabbalna, kon na kan lañ sabbal lillahi ñeel yàlla kan moo sabbal ma fi samawaati mboolem lu nekk ci kaw asamaan ak ñan wa maa fil ardi ak mboolem lu nekk ci kaw suuf mbokk yi asamaan du li ñuy séen nii rek asamaan ëpp na li doomu aadama mën a teg ci xelam waxuma laa sax li doomu aadama mën a teg ci bëtam sabaxa lillaahi maa fi samawaati wal ard mboolem lu nekk ci kaw asamaan ñi nga xamante ne yàlla may na leen ñu dem ba espace international tiim suuf si ci ay junney kilomètre ñooñu tey gis nañ yeneen bloc yoo xamante ne bokkuñu suuf si ñu nekk am na yeneen biddiw yoo xam ne ñoo ëpp doole fuuf suuf si ñu nekk te la fa nekk kenn xamul ñaata milliards yi milliards yi biddiw ñoo fa nekk walla ñaata milliards milliards yi bloc ñoo fa nekk ba léegi doomu aadama yi mënuñoo peeg li yàlla bind ci kaw asamaan kon bu ne yàlla ne am naa ñu ma sàbbaal loolu lu wér la ndax ba léegi xamaguñu asamaan fu mu toll ak ñaataa fa nekk ndax diggante asamaan ak suuf rekk wala diggante jant bi ak suuf rekk nee nañ lu mu néew néew mën na téeméeri million ak juróom fukk ci ay kilomètres kon mbokk yi yàlla yaatule na yàlla bëri waaye yàlla am lu ne moo tax mooy alxaniyu alxamid yàlla rek a doylu ku dul moom am nga soxla kon yàlla momu mom la yonent bi di présenté ndax yàlla dafa présenté Seydina Muhammad kon faawu Seydina Muhammad mom itam présenté ñu kan moy yàlla loolu motax yàlla wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim mune way way indil na len ndaw lo xamne ci seen biir la jógee am na ndey am na baay kuy yaayam amina kuy baayam abdallah fa tabarakallah waye itam yàlla boole ko ci jullit yi nee na yonent boobu ku am yërmande la ku am ñeewent la yàlla moo présenté sayidna muhammad kon sayidna muhammad wax nañu wax yàlla mooy kan te ku jàng ayatul kursi di nga xam yalla mooy kan allahu yalla, la ilaha amul benn bur. illaa huwa dul moom mooy kan alxayu mooy ki nga xam ne mooy dund dund gu amul tàmbali ma amul jeexuwaay ndax tàmbali yàlla ko créé jeex yàlla ko créé kon yàlla kenn xamul fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yem alqayyum mooy ki nga xam ne moo taxawu lépp yàlla taxawu suñu lépp suñu zahir suñu baatin suñu guddi suñu bëccëg moo tax bi ko yonent yàlla Muusa laajee ne ko ndax dangay nelaw mu ne ko wutal ndaa mu wut ndaa mu ne ko def ci ndox mu def ci ndox mu ne ko téeñul mu téeñu mu ne ko yenul mu yenu yonent yàlla Musaa doomu aadama la yenu yenu yenu ba mu yàgg mu commencé jayaxu di gëmmentu ba mu yàgg ndaa la rëcc ko daal di roj toj toj kon la taquzuhu sinatun wala nawm yàlla neena duma gementu ma gëmmantu nelaw suma gementon wala wala ma nelaw nin da loolu mel non lay aduna bi di mel kon yàlla moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum لا sinatun سنة ولا نوم إلى darajata العالية rafia وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد fa tabaarakallaahu ñu sant yàlla bu baax sant aji nodd ji ku dëdd ku dégg nodd gi xam ne macha allah am na fu mu bokk eh, yal na yàlla nangu Seydina Omar daan na wax ne lawlal xilifa la azantu su fekkoonte ne du xalifa gi ma nekk xalifa konoon julli gu jot maa koy nodd ndax xam li ci tiyaabu nodd kon فتبارك الله لين دون واخ سي غاتال رك موي كو بغا خام سونو بروم سبحانه وتعالى jàngal ayatul kursi ak xul huwallaahu ahad boo jàngee xul huwallaahu ahad di xam kuy yàlla waaye boo jàngee ayatul kursi di nga xam li mu li mu man lan la waaw ku jàng xul huwallaahu ahad firulu ko di xam kan mooy yàlla waaye ku firulu ayatul kursi yu mbokk yi dinga xam yàlla lu mu am ak lu mu man allahu yàlla laa ilaha amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu gu am njëriñ ka ca ka koy def ñàkk jaamu ga nekk lor ci moom illaa huwa ku dul moom keneen koo jaamu ku dul yàlla mën ngaa bañ a am ak pay waaye mën nga am jàmm waaye koo jàmm ku dul yàlla doo am pay te dañ la dugal safara wala dañ la duma kon fa tabaarakallaahu mu mel ni loolu lu am solo la xam xul wallahu ahad lu sa def alwa gatt gatt xam ayatul kursi lu wax lu sax alwa gatt gatt di nga mën a xam sa borom mooy kan te loolu farata la mbokk bi ci topp mooy ku xam laqad jaakum xam muhammadun Rasulullah. te mooy jeexitu suuratu tawba ak jeexitu suuratu fatxi inna fataxna di nga xam sayyidina muhammad mooy kan ak ay njab njabootam kon lu jar a bàyyi xel la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam teraanga bi gën a rëy ci teraanga yi ci ñun mooy xéewal gi ñu xéewale sayyidina muhammad ndax moom rek la yàlla julli ci moom ak ak i malaakaam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ki malaataam ñi ngi julli ci sayyidina muhammad kon yi ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla julli leen ci moom te sëlmal ci moom loolu moo tax mag ñi guddeeg bëccëg duñ ci doyal subaab ngoon guddeeg guddeeg bëccëg duñ ci doyal xataa Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu tuddee na boppam xaadimu rasul wala bok xamna ne tur bi ko dakal ci turam yi moy mooy jeewri nu sayyiduna muhammad kon inna awla bi yowma alqiyaama aktharukum alayya salaa yonent bi ne ki gëna a yey ci man ëllëg yowma qiyamah ci taranga yamay am نهاية المعزولاتها الفوز بالخلود في جنان والنصر إلى وجه المعبود معبود الحباد وصلاة والزلم على غير المناد لآسئي سعادات النضاة سيدنا محمد الذي يسحد من لباه دعوته ويبور من خالفه حنادا وعلى آله وصحبه المودعين لطريق لمن جاء بعده من آل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النسيعة بتوبه إلى الله توبة نصوعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين واصبروا على إقامة فرائده التي فرضها عليكم دهاكم بها إلى عذرته ليكرمكم وعذر من من من تدييعها فإن في تدييعها تعرضا لهلاك المضيئها ومن قام بها على سنة رسوله الكريم أجار من أصاب النار الجعيم فأعلى له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو فوز العظيم ولا سيما أصي صلوات التي تدعون لها فحبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في عبادات مقام الرحس في أعداء الثاد ففرقوا لها قلوب محل النظر الرب وطهروا لها ذيابا وأجساد تفوس بقبول والقرب إن صلاتنا الفساء والمنكر ولذكر الله أكبر ففي حديث بني الإسلام على خمس صارت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإقام الصلاة فإيتاء الزكاة وعج البيت وصيب رمضان رواه البخاري ومسلم يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المذكور فيما بالجم من نعمائه وصلى وظلم على غير المبحوث للنصر الحق وطيبات سيدنا محمد وابل الخير الحاطب وعلى آله وصحبه الذين زيروا الجد جد السرك زر عاطل الذين بذلوا للدين أقوه بلا مطل الماطل أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصار آه، الأمور مؤدساتها وكل مؤدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا يا عباد الله أن غير ما اتخذتم آه، وصلة لربكم وردائه توحيده وإدامة سكره وصلائه وزيانة ودائه وإقامة صلائه أوقاتها المحلومات وأيهاتها المحودات على وفق جنة سارئها المرضية في كل بكرة وكل عاصية واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارز ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باغتهام مناحيه أو باستخفاق بأوامره في عوام أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يا يا يأمر بالفحشاء والمنكر والمنكر ففي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تخشيرنا بالعف بالعفو وعلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين